luñ maase mujj baati lay di jàngale loolu moo ko tax a ku taalif téere bi nag naxu ñaar nit ñoo ko taalif mooy ali jaarim ak mustapha al amin ñoom ñaar mustapha amin ñoom ñoo taalif téere boobu ñoo taalif naxu naxul waa dee xoy mais matière naxu dëgg-dëgg ku ko njëkk taalif kooku mooy abul aswad adduali moo njëkk taalif matière naxu sabab bu tax mu taarif ko nag am na ñaari wax ñi ne na ali ibn abi benn jour dafa romb dégg benn waa di jàng alquran ne anna allaha bari'un min al musrikina wa rasulihi waa yàq-yàq bu rëy ne mu wax na yàlla seet na ci bokkaalekat yi seet na tamit ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu yaqubu mag la ali dégg lool te lu mu waroon wax mooy an allaha bari um minal musrikina wa rasuluhu yàlla seet na si bokkaalekat yi te yonent bi tamit seet na si bokkaalekat yi loolu la waroon wax moo mu ne an allaha bari um minal musrikina wa rasuluhu ali xam ne loolu yaqubu mag la mu digle ko mu digle ko après abul aswad addu ali ñëw bind ko ñëw bind ko lu mu njëkk a bind nag nee nañ ma ruufu atfi yooyu la a bind am ñu nag am ab temps jullit ñi dañ leen di dugg di dugg si di dugg si dëkk jullit dëkk yéeféer yi nga xamante ni nekkul dëkk jullit ñu tijju ko def ko dëkk jullit dem ba si kanam ajami di dugg si lislaam dem dem ba commencé bëri après umara yi ñoom dëkk buñ tijjoon dañ fay teg benn nit mu jiite foofu ñooñ umara yi nag ah, dajaloo def benn waxtaan xam nañ ne léegi fan yi ajam yi ñu ngi dugg ci lislaam te suñ yàggee mën nañu yàq arab ñi dem ba si kanam ba si dugal alquran ñi dajaloo wax ko imam ali abar imam ali digle ñi taalif ko abul aswad adduali njëkk moo ko njëkk taalif moom nag taabiin la mooy ko gis sahaaba saxaaba mooy ko gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gëm abul aswad adduali taarif ko ñëw bindu huruf at fi wan ko imam malik imam imam ali imam ali na ko ma ahsana naxw lazi moo gën a rafet naxaw bi nga xamante si loolu nag lañ jëlee ma ahsana naxw lazi naxawtahu si loolu lañ jëlee baatu naxaw bi naxu bi nag ñaan ñu ko taalif mooy ali jaarim ak mustapha amin waaye ku njëkk a taalif matière naxu mooy abul aswad abdu ali wax naa nag naxu lu muy jàngale naxu mu muy jàngale mooy nu ñu maase mujju baat mujju baat soo ne muhammad noo soo si noo war a def ba maas ko muhammad ba maas dan din loolu lay naxu di jàngale ñu jumlatul mufiida suñ ko waxee mooy wax ju am njëriñ balaa moo jàngal nañu maase mujj baati dala lay jàngal wax ba pare mu ne al amsalati lii mooy misaali al bustaanu tool bi jamiilun aji rafet la al shamsu jant bi taaliatun aji fenk la sama fonna aliyun ali wardatan fleur katafa dagna muhammadun muhammad zahratan fleur yanishu dana dund assamaku jën bi filma i si biir ndox bi yakturu dana bëri annaqiilu garabu tàndal mi fil misra si misra albustaanu jamilun tool bi ay rafet la lool jumlatul mufiida la jumlatul mufiida nag suñ ko waxee mooy kalaam ba tey kalaam mooy jumlatul mufiida jumlatul mufiida mooy kalaam comme cinq comme nga ne cinq ak junni wala nga ne téeméer ak cinq benn la rek moo wax ju am njëriñ kon albustaanu jamilun loolu am na njëriñ albustaanu tool bi jamilun aji rafet loolu am na njëriñ ñëpp xam nañ lu mu bëgg a nag ñaari baat lay tàmbalee jëm kaw mënut a nekk benn baat su nekkee benn baat rek jàppal na benn bi dañ kaa tudd waaye beneen bi tudduñ ko dañ kaa nëbb albustaanu tool bi nag baatu boppam la jamilun baatu boppam la bokkuñ albustaanu baatu boppam lañ koy compté jamilun baatu boppam la kon loolu ñaari baat la ashamsu jant bi taaliatun aji fenk la loolu ñëpp xam nañ ne am na njëriñ loolu lu wax xam nga ko su ñëwoon ne ashamsu taaliatun xam nañ lu mu wax waaye su ñëwoon ne kese noppi wala mu ne albustaanu kese noppi kenn xamul lu mu wax albustaanu rek bu waa nit ñi dañ naan kii dof la waa su tegee albustaanu jamilin wala mun asamsu taalaatun bu waa xam nañ lu mu wax asamsu nag baatu boppam la taalaatun baatu boppam la kon loolu ñaari baat la chamma fóor na aliyun ali wardatan fleur chamma ali wardatan loolu loolu jumlatul mufiida la ndaxte am na njëriñ lu mu wax xam nañ ko ali fóon na fleur ñëpp xam nañ ko waaye su ñëwoon na sàmm fóon na loolu tamit jumlatul mufiida la comme lu ma la waxoon sànq rek yenn saa yi man mën nga mën nañu tudd benn baat waaye beneen bi dañ koy nëbb sàmm fóon na huwa moom kon loolu ñaari baat la am na njëriñ waaye su ñëwoon rek na ali noppi wala mu ne wardatan noppi wala mu ñëw sax na ali wardatan ali wardatan boobaa loolu du jumlatul mufid kon jumlatul mu dara nekkul ñaari baax lay jëm kaw waaye day am njëriñ nekkul ne nekkul ne ah, soo waxee ñaari baat rek dala amul njëriñ sax jumlatul mufid dé day tàmbale ñaari baat jëm kaw doo am njëriñ te am am njëriñ sama ali wardatan loolu ñetti baat la sama ak ali ak wardatan kon loolu ñetti baat xatafa dagg na muhammadun mahamad zahratan fleur loolu ñëpp xam nañ lu mu bëgg a wax kon loolu jumlatul mufiida la xatafa baatu boppam la muhammadun mahamad baatu boppam la muy ñaar zahratan baatu boppam la muy ñett ne yaishu dana dund asamaku jën bi filmaa yi si biir jën bi dana dund ci biir ndox bi loolu jumlatul mufiida ndaxte ñëpp xam nañ lu mu bëgg a wax yaayinsu nag su ñëwoon rek na dana dund waa loolu jumlatul mufiida la comme lu mu la wax sànq beneen baat bi dinga am na bu waaye beneen bi tudd ko yaayinsu dana dund woo moom ñaata baat la nag jumla bi yaayinsu benn baat la asamaku benn baatu boppam la muy ñaar fii baatu boppam la almaa baatu boppam la mi ñeenti kon xarf baat la ndax dars suñ jàngee dars bi suñ jàngee bi yoo pare bu ci topp dana jàng rek ñaata façon arab ah, arab yëpp ñaata baat la am ñaata baat la am bu ci njëkk mooy finlu ak ismu finlu xarf loolu la am kon xarf baatu boppam lañ koy compter loolu danañ ko jàng si kanam kon xarf boo gis rek jàppal ne baat bopp la moo xam fii la wala en la wala min wala fuwa yooyu yëpp seen baatu bopp lañ koy compter kon jumla bi ñeenti baat la yaniisu ak asamaku ak fii ak almaay mu ne yàq suru dana bëri am na xiilu garabu tàndal moom misra si misra yàq suru am na xiilu fil misra loolu jumlatul mufiida la wax ju am njëriñ la mais suñ ñëw doon am na xiilu noppi kenn du xam lu mu wax kon foog mu bool ko suñu ñëwoon na yàq su dana bëri ànd ak fi misra bu waa ñëpp xam nañ lu bëgg a wax kon loolu jumlatul mufiida la yàq su benn baat la baat boppam la ànd ak lu baatu boppam la fii baatu boppam la misra baatu boppam la kon jumla boobu ñeenti baat la jumlatul mufiida la nekkul ne loo wax rek su commencé ñaari baat jëm kaw rek ah jumlatul mufiida la déedéet day am njëriñ dafay ne dafay nekk biir wadd yi kon jumlatul mufiid am na ñeenti sart ñeent sart yi tax mu mën a nekk jumlatul mufiid bu si njëkk mooy day nekk lafz day nekk lafz lafz nag suñ ko waxee mooy day nekk kàddu bu ànd ak xurufu kàddu bu am yenn si xurufu jaay comme kàddu lay doon te dafay am xurufu hijaay mooy abata sa yooyu ba mu jeex daf koy am mënu kaa ñàkk am su ko amul lëg du lafz soo moo tax soo bindoon soo bindoon comme albustaan jamilun nii te tudduñ ko waxuñ ko nga bind wa rek loolu du jumlatul mufiida ndaxte amul kàddu dafa war a am kàddu comme ñu wax ko ah, li mu am yenn ci xaruf xaruf yi jaay kon dafay nekk lafz ñaareel ba mooy dafay nekk murakkab rakam nag mooy mu toggaloo ñaari baat jëm kaw ñaari baat jëm kaw rek la mën a nekk mënta kon mënta nekk benn baat mënta nekk benn baat soo noonu albustaan kese loolu du jumlatul mufiida ñaari baat lay nekk jëm kaw ñetteel ba mooy dafay nekk mufiid dafay nekk lu am njëriñ dangaa ñëw sax wa albustaanu jamilun tegal ci al muhammad wa Isa o Musa yooyu murakkab la te wax nga kàddu waaye nekkul jumlatun nekkul mufid nekkul am njëriñ waaye soo ñëwee ne albustaanu jamilun loolu kàddu la mufid murakkab la ñetteel ba mooy bil wadee bil wadee nag uddee nañ ci ñi neñ bil wadee mooy mu nekk looy wax na nekk arab kon jumlatu mufida si arab kese la mën a nekk dangay wax arab xuruf yi day dangay wax arab jumlatu mufid si arab rek la mën a nekk am na ñu ne bil wàddi gi loolu lay firi moom wax si arab am na ñu ne nag na si naka si jublu rek bu fekkee wolof lay wax na si jublu wax kon jumlatu mufid si ñeenti saa tey lay daje mooy nekk lafz murakkab mufid bil wàddi si du jumlatul mufid kon si ñëwoon na xatafa muhammadun zahratan ñu bind ko waaye tudduñ ko boobaa du jumlatu mu feet lu tax ndaxte amul kàddu naka noonu tamit suñ ñëwoon rek na koŋ-koŋ ñëpp xam nañ lu mu bëgg a ma dugg loolu du jumlatul mufiida ndax lu tax nekkul jumlatul mufiida ndaxte amul amul xurufi hijaa yi waaye am na kàddu waaye amul xurufi hijaa yi kon da war a am benn du ci kat ñeenti saar yi war a mat sëkk kon loolu mooy ñeent saar yu yooyu yooyu nga xamante ni dafay dajee kalaam doo di am wax naa ne kalaam nag mooy jumlatul mufiida jumlatul mufiida mooy kalaam mu ne lii mooy gastu bi izaa taamal naa bu ñu bu njëkk bi wajat naa dañ koy fekk yatarakka nii si ñaari baat yadaahuma benn bi albustaan mooy tool bi wa saaniyatu ñaareel bi jamilun mooy jamil bi firi rafet kon bu ñu seetantalee toggale bu njëkk bi mooy albustaan dañ koy fekk mu toggaloo si ñaari baat kon jumlatul da ñaari baat la rek a nekk jëm kaw waaye mënta nekk benn baat benn bi mooy albustaanu ñaareel bi mooy jamilun fa iza axadnaa buñ jëlee alkalimatul bi wax daa mooy tool bi am na bu wet suñ jëlee albustaana kese su ma ñëwoon albustaana kese boobaa duñ ci déggee duñ ci déggee dara dañ naan kii doof kon albustaana kese laa yekk fii du doy di toqaatu bi ñel waxtaan albustaana kese doyul waxtaan da daalika na ko noonu alxaalu lay mbir mi isa xas naa buñ jëlee alkalimatu saaniya yeetu baatu ñaareel bu addax moom dong waye moom jamilun mooy jamilun bi buy firi rafet walakin na naka doon tamit nee na buñ jëlee jamilun kese wax jamilun kese boobaa duñ xam lum bëgg wax suñu suñu suñu ñëwee ne jamilun kese boobaa ñëw rek ne jamilun loolu duñ xam lum bëggoo loolu doyul waxtaan duñ dégg benn maanaa kon loolu doyul waxtaan waaye walakin na walakin naa waaye ñun isa damam naa buñ tàppee mooy buñ boolee ixdal kalimatayni benn si ñaari baat al uxra jëmale ko si beneen bi ala naxwi lazi lu mel ni si nga wax si lu mel ni li nga xam ala si lu mel ni allazi li nga xamante ne fi tarkiib ñu si toggale waxul naa ñu wax albustaanu tool bi jamilun aji rafet la fahim naa dañ dégg maanaa maxnaa kaamilan bu mat nee waaye suñ jëlee ñaari baat yi boole ko boole ko ñu wax albustaanu jamilun fahimnaat da maanaa kaamilan danañ dégg maanaa bu mat sëkk wastafadnaa te danañ jëriñu faaidatan njëriñu taamatan bu mat suñ boole suñ boole ñaari baati albustaan jamiñu danañ dégg maanaa bu mat te danañ ci jëriñu danañ xam lu bëgg wax waaye moom ittisaaful bustaan mooy melek tool bi bil jamaali si rafet danañ ci jëriñu jëriñu mat mooy me ne mm, tool bi liñ ko mel rafet xam nañu lu mu wax wali zaalika looloo tax yusamma danañ tuddee haza tarkibu bi la toggale jumla uh, ju am njëriñ mu ne wa kullu waahidin bépp si ñaari baat dañ koy compté juz'an ab xaaj min jumla mu ne albustaan jamilun bu si nekk nag baatu boppam lañ koy compter albustaanu baatu boppam lañ koy compter jamilun baatu boppam lañ koy compter waa kaza naka noonu yuqaalu danañ wax fi amsalatul baqiya si misaal des lu ñu wax si albustaanu jamil nuñ ko leerale noonu lañu leerale bi si des asam su ñëw rek waxtaan taanaatuñ soo ko waxoon waxtaan waaye soo leen waxtaan mat kon lu ñu wax si albustaan jamil moom la ñu wax kon suñ ko suñ ko bindoon day gën gudd rek te comprendre la waxee benn rek nga comprendre mu ne wa bi haza si lii nag naraa lañu gis am na kalimata na baat wax daa moom dong laa tak fii du doy waxtaan benn baat kese doyul waxtaan benn du mën a nekk jumla su mu fiir wa annahu nag moom laa budda du mën a ñàkk ñu kalimata ni si ñaari baat fa aksara baat ko gën a bëri xataa yastafiidu ba tu mu jëriñu al doomu aadama faayda suñ jëriñu taamatan bu mat nee na suñ waxee benn baat kese du doy waxtaan kon du mën a ñàkk mu nekk ñaari baat jëm kaw jëm kaw yi nag moo xam ne mënti du am nekk ñaari baat rek ndax si doomu aadama mënti mën saa jëriñu loo mu wa amaa waaye lu mel ni xum jugal ijlis toogal te kallam waxal mimma mu bokk si baat yi nga xamante ne zaahir mimma zaahir mu bokk mu bokk si mimma bokk na si li nga xamante ne mimma zahiru bokk na si lu feeñ annahu ne moom kalimatu waaxidun waaxidatun benn baat la kaafetun bu doy fi taxaatu bi si waxtaan lu mel ni xum bi firi jugal ijlis toogal te kàllam waxal loolu soo xoolee mu bokk si baat yi nga xamante ni doy na waxtaan lu feeñ mooy ne ah, benn baat la waaye doy na waxtaan fale sa nekkul fi la xaqiqati si dégg si dëgg-dëgg kalimatu waaye din si benn baat nee dëgg-dëgg soo xoolee dana yaana benn baat la waaye du benn baat wa innamaa huwa naka moom jumlatun jumla la murakkabatun bu toggaloo min kalimatin si ñaari baat xum suñ ko waxee wala ijlis wala yu mel ni soo gisee danga naan benn baat la lu feeñ loolu lay wan waaye ñaari baat la si dëgg-dëgg ihdaahuma benn bi malfuusatun luñ tudd la waye moom xum mooy jugal masalan ci misaal nee benn baat bi tudd nañ ko mais beneen bi tudduñ ko tudd na mooy xum comme misaal xum nañ ko wal uxra beneen bi nekk luñ tudd waye moom anta benn bi tudd nañ ko te mooy xum mais beneen ko kon loolu wax sànq yenn saa yi wax benn baat men women ah, danañ wax baat danañ wax baat mu nekk jumlatul mufiida te soo ko gisee si saa da nga naan benn baat ñaari baat la beneen bi dafa nëbbu kon suñ ne la kum wala ñu ne la yu mel ni suñ la waxee loolu rek ñaari benn bi daa feeñ benn feeñul benn comme suñ ne la xub jugal anta yow anta mooy ñaareelu baat bi kon loolu jumlatul mufiida allati anta wéyu moom anta mooy anta allati bi nga xamante ni yafhamu dana ko dégg assaamiu aji dégg minal kalaami si ku wax wayn lam yun tax dala tudd bihaa si moom sinul xum boobaa ku wax ki euh, ah, sinul xum ku yow mu jàkkaarloo da nga dégg lu waaji wax kon sunu lokum raja xam ne yow war ngaa xam ne yow mi yow mu da nga xam ne yow ante yow lay waxat kon dara tudduñ ante gi moom dana xam ne moom nañu waxat kon loolu ñaari baal la waaye benn bi dafa naburat loolu jumlatul mufida la mu ne alqawaidu li mooy tënk bi mu ne ak toggale allazi bi nga xamante ni yufiidu dana jëriñ faidatan njëriñ taamatan bu mat yusamma danañ ko tuddee jumlatul mufidatu wax ju am jumlatul mufida toggale bi nga xamante ni dana ci jëriñ jëriñ bu mat loolu la tuddee jumlatul mufida jumlatul mufiida wa yusamma danañ ko tuddee aydan ba tey kalaamun wax wax naa leen jumlatul mufiida danañ ko tuddee kalaam kalaam tamit danañ ko tuddee jumlatul mufiida comme ñoom ñaar comme nga ne ak téeméer rek loo si wax xam ne soo ne kalaam mooy jumlatul mufiida soo ne mu ne al wax ju am juri qad tatarakkabu dana toggaloo min kalimatayni si ñaari baat wa qad tatarakkabu dana toggaloo min aksara su ëpp ñaari baat jumlatul mufida nag wax naa leen ñaari baat rek la mën a toggaloo mënta toggaloo benn baat ñaari baat jëm kaw waaye mënta nekk benn baat wa kullu kalimatin bépp baat fi moom nag tuaddu dañ koy compter moom bépp baat nag si dañ koy compter baatu boppam kon jumla bi ni kon jumla bi rek def benn baat déedéet suñu al ñu albustaanu jamilun booba albustaanu baatu boobu la ngay def jamilun baatu boppam la ngay def noonu tamit jàppal ne am dafa am am na am na juróom benn xeet yi nga xamante ni bokkuñ comme am na alkalimatu alkalimatu nag suñ ko waxee mooy benn baat benn baat kese lay doon mu boobu xam nga ñëpp xam nañu kon du am njëriñ alkalimatu du am njëriñ kalimatu benn baat lay doon alkalimatu dafa am alkalimu am al al aljumalu am jum am al al am alkalaamu am jumlatul mufida am kalimatu nag suñ ko waxee mooy benn baat benn baat kese la mën a doon comme albustaanu loolu kalimatu la waaye soxna albustaani jamilun loolu du kalimatu naka noonu timit kalim dafa am kalim nag suñ ko waxee mooy ñetti baat jëm kaw ñetti baat yi nag mën naa am njëriñ mën naa ñàkk am njariñ soo ñëwee ne Moussa Ahmad Insa loolu kalim la ndaxte ñetti baat la waaye nekkul kalim bu am njëriñ kon kalim mën naa am njëriñ mën naa ñàkk am njëriñ soo ñëwee ne sama ali wardata loolu kalim la ndaxte ndaxte ñetti baat la te am na njëriñ kon kalim mën naa ñetti baat lay nekk jëm kaw moo xam am na njëriñ wala amul njëriñ ñetteel ba mooy dafay nekk al jumla al jumla al jumlatu lay nekk jumlatu nag ñaari baat lay nekk jëm kaw ñaari baat yooyu nag moo xam am na njëriñ wala amul njëriñ al jumlatu lay doon kon suñu ñëwee na al bustaanu jamilun loolu al tamit suñu loolu ah, la kon jumla mooy nekk ñaari baat jëm kaw ak dafa am tamit al qawlu al qawlu nag mooy wax al xawlu naa nekk kalimatu mën naa nekk kalim mën naa nekk al jumlatu mën naa nekk kalaam mën naa nekk jumlatul mufid am na tamit kalaam kalaam lu ma leen waxoon rek kalaam ñeenti saat daje mooy tax mu moo ci daje moo nekk kalaam kalaam nag mooy jumlatul mufid kalaam dafay nekk lafzun nekk murakkab mufid mufid bil wadin loolu mooy kalaam naka doon tamit ak jumlatul mufida comme ni ñu ngi ko leeraloon sànq jumlatul mooy kalaam kalaam mooy jumlatul mufid kon si kalaam la kalaam la te am na njëriñ te mu rakkab la si ñoon mala sama ali wardatan kalaam la jumlatul mufida la kalim la nga doon nañ la kalim na njëriñ amul njëriñ ñetti jumlatu ñaari baa lay tàmbalee jëm kaw moo xam am na njëriñ wala amul njëriñ ndaxte jumlatu la naka doon timit xawlu la xawlu mooy wax rek dele benn baat la sax xawlu la waaye loolu du kalim du kalimatu kon ndaxte benn baat rek la mën a doon comme su ñoon na asamsu asamsu kese noppi loolu kalimatu la xawlu la waaye du kalim du jumlatu du kalaam du mufim kon kii dafa njëkk mooy dafa kalimatu mooy benn baat kalim mooy baat jëm kaw na njëriñ yooyu amul njëriñ ak al jumlatu al nag bokkut ak al jumlatu ñaari baat jëm kaw am na njëriñ wala amul am al jumlatu mufiid la jumlatu mufiid ñaari baat jëm waaye dafay am njëriñ boobu dafay am njëriñ te ak jumlatu nag mën naa am njëriñ mën naa ñàkk am njëriñ am al kalaam kalaam ci mooy jumlatul mu dafa ñaar baare dem jëm kaw te dafay am njëriñ am al qawl al qawl mooy wax kon al qawl moom daje na si yëpp boo tudd rek bokk na kon mu jox la nag tamrinaat mu ne tamrinaatun li ay jéemantu la kon jox la wax dars bi ba pare kon dalay jox pour nga jéemantu ci yenn baat yi mu ne iqra jàngal alamsilatu alamsilatu saabiqatu misaal yi jiitu ba bayin nga leeral adadu kalimaat li mu baat yi fi kulli misaal ci bépp misaal bi yomb na nee na nga jàng misaal yi jiitu te mooy albustaan jamilu assamsu taalaatun sama aliyi wadatan ba mu jeex yooyu ngay jàng nga wax bu si nekk nga teqale ko nga wax ñaata baat la baat bu nekk nag baat boobu lañ koy compter mu ne saani ci jimantu bu ñaareel bi iqra jàngal al jumal al aatiyat jumala yi dikk wa bayi nga leeral al kalimaat baati fi kulli waadin ci képp nekk minaa si ci ñoom jàngal jumala yi di dikk nga leeral bu si nekk ah bu si nekk nga leeral baatu boppam bu si nekk nga leeral ñaata baat la jumla bu nekk nga leeral ñaata baat la mu ne asamaau asamaan si mumtiratun aji taw la asamaau mumtiratun loolu leeralal ñaata baat la alxadiqatu jardin bi jamilatun aji rafet la leeralal ñaata baat la yanqatiu dana dagg almatlaru taw bi leeralal ñaata baat la yasiru dana dox asxaabu niir niiri leeralal ñaata baat la tatluxu dana fenk ashamsu jant bi leeralal ñaata baat la tajifu dana fend al ardu suuf si ak picc mi fawqa shajarati ñu si kaw garab gi leeralal ñaata baat la yaqtifu bi kurati si bal bi waxoon naa leen nag xaraf baatu boobu la nga konte ñoom ba yooyu xaraf la yanzu yanzilu dana wàcc almaturu taw bi mina samaa'i jugee si asamaan tasiiru dana daw dana daw sufunu gaali fil si géeji yastaddu dana tat albardu sedd bi fawqal jibaali si kaw doji kon loolu yaay leeral bu suñu jumla bu nekk ñaara ñaata baat mu ne taalisa jimantu bu ñetteel bi muy ràññale al jumlatu al jumalul mufidatu mufidatu jumla bu am njëriñ fi tarkibil fi si toggale di dikk toggale yi di si bu si jumlatul mufida jumlatul nag waxoon naa ne mën naa tàmbale ñaari baat jëm kaw waaye du nekk jumlatul mufida kon yii am na yu si am na yu dul si jumlatul mufida leeral ko bu si nekk jumlatul nga génnee ko def ko à part laysa nekkul al jaww jaww bi daa ñëw rek na la jaww bi nekkul xool bu fekkee xam nga lu mu wax nga leeral foofu bu fekkee jumlatu mu fi nga wax bu akala lekk na faridun farid farid lekk na farid nag doomu aadama loolu leeral ko bu fekkee jumlatul mufida la nga wax bu fekkee di jumlatul mufid nga bàyyi ko noonu alqitaaru terrain bi sariun aji gaaw la terrain bi aji gaaw la jumlatul mufida wala jumlatul mufid faaxal ini hatta boo góorgóorloo ñëwee rek na la boo góorgóorloo xam nga lu mu wax xam ba xam dana la soo góorgóorloo dinaa la jëndal lii wala soo góorgóorloo dinaa la dóor xam nga xam nga lu mu wax kon xoolal ba xam fekkee jumatu mu fi de nga wax ba fekkee jumatu mu fi nga feebar ki yëlantikoon nga wax astaw bu yére bi nasifun nazif xadis la kon yére asaw bi nazif yére bi dafa set jumlatu mufida wala du jumlatu mufida alkitaabu téere allazi ba nga xamante ni téere ba nga xamante ni jumlatul mufida la wala du jumlatul mufida albintu xale bu jigéen bi almutaallimatu bay jàng xale bu jigéen bi jàng xoolal waxal ba xam jumlatul mufida wala du jumlatul mufida alors moom tamrinu quatre jimantu ñeenti ijaanal defal kullu misaalin bépp misaal min amsalatil aatiya si misaal yi dikki jumlatan mufiidatan jumla bu am njëriñ bi wadin kalimatin kalimatin si teg baat mulaayimatun bi wadin kalimatin si teg baat mulaayimatun bu dëppoog si barabu weti barabu weti yi defal si ay tomb yaa fay teg baat bu dëppoog moom pour mu nekk jumlatun mufiida kon soo si tegul nekkul da ngay ñëw rek jël baat dugal soo si tegul baat bu dëpp moom du nekk jumla duma fi da si teg baat bu dëpp ak moom al usfuru picc mi al qafasa kaaf te si baat bi al fakihata firwi bi teg si baat bu dëpp ak moom mu nekk jumla duma fi al sawru yëkk mu nekk bu alwaladu xale almuazzabu buñ yar alxisaau a addayiqu bu xat alxamaru weer wi asamaan si kon barab yu di yaa ci dugal baat bu dëpp moom mu ne tamrun xaamisa jimantu juróomeel bi dan tegal kalimatin bépp baat min kalimaat laatee si baat yi dikke si jumla bu am jëriñ murakkabatun bi toggaloo min kalimatay ni si ñaari baat baat yi mu tegal la ni nga xëy da nga koy dugal si jumlatul mufiida mu togg na nekk ñaari baat ñaari baat lay doon dóob ñaari baat yaayi kon da indi beneen baat baat yi nii si nekk da nga koy indi beneen baat bu dëpp moom pour mu nekk jumlatul mufiida alxadiqatu jardin ashajaratu garab gi al azhar fleur yi ak jant bi kon dugal andil beneen baat yu dëppoo baat yi nekk jumlatu mu fi ñaari baat kese lay doon danga tegal kullu kalimatin bépp baat min kalimatul aatee si baat i dikk si jumlatin mu fi si jumla bu am njëriñ murakkabatun bi toggaloo min aksara su min aksara si lu ëpp min kalimatayni si ñaari baat baat yi mu andile baat yi mu andile si suuf ngay dugal si jumlatul mu fi mu toggaloo lu ëpp ñaari baat na ëpp ñaari baat kon daal ñetti baat daal danaka man moom ma dangay yokk dangay yokk ñeenti baat wala waaye daal ñetti baat moom danaka mat mënta nekk ñaari baat almaa u ndox bi andi daal andi daal yeneen ñaari baat yu dëppoo moom alfaakaata firi bi yeneen ñaari baat yalaabu dana foo yarkabu wax kon ñetti baat jumlu mu fi nga xëy def te day nekk ñetti baat mu ne tamrin saadisa jimantu juróom benn iti andil bisraasi bisraasi jumalin si ñetti jumla kullu waahidin képp ku nekk dinaa si day toggaloo min si ñaari baat da ngay ñetti jumla yoo xamante ni jumla bu si nekk ñaari baat lay doon kese wabi salaasa wabi salaasa jumalin wabi ak ñetti jumla bi képp si ñoom salaasa kalimaatin baat nga andi ñetti jumla yoo xamante ni jumla bu si nekk ñetti baat lay doon summa bi salaasi topp ci ñetti jumla nga indiwaat yeneen ñetti jumla kulminal képp ci ñoom arbon ñett yeneen ñetti jumla ñetti jumla yu bu ci nekk ñeenti baat lay doon kon njëkk bi da nga ñetti bu ci nekk ñaari baat lay doon ñaar ñaareel ñetti jumla bu ci nekk ñetti baat lay doon ñeenteel ah, ñetteel bi nga indiwaat yeneen ñetti jumla ñetti jumla yi bu baat lay kon loolu lañ ci darsu naxaw bu njëkk bi uridu illa al islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu